ni site internet Buzz Actu 221 dalee jàmm ab xibaar gannaaw explosion de mine mi nga xam ne dañ am foofee ca diwaanu Ziguinchor am si ñeenti militaire sénégalais yoo xam ne dañ nañ si la tamit juróom-ñaar ñoo am ay gaañu gaañu jamono ji leen nag boobu la explosion dina mine mu amoon na ca Diabou Dior ab village situé dans la commune de Djibidione boobu la incident mu daal di am niki démb vers 19h ci jamono ji nga xam ne rek yooyu les militaires gaz boobee waaye nag gannaaw bi nga xam ne rek boobule explosion daal dinay am seen kaw ñeenti militaire danañ si ñàkk seen bakkan ba tax nag kii di njiitu réew rétablissement ci militaire yi nga xam ne ñoo si jëlee ay gaañu gaañu ci boobule explosion ba tey li ci mbirum xibaar rek bébé bi nga xam ne dañ koo kidnappé woon foofee ca pouponnière bi nga xam ne kii di Ndella Madior Sitor Diouf moo ko dirigé ca Sacré-Cœur bu ñu sukkandiku nag suñu ay naataango ñu ngay xam ne ni gannaaw plainte bi nga xamante ni doomu Madior Diouf daal di ko déposé foofee ca division spéciale de cybersécurité ñoom ñi leen nag ñu daal woon si ubbi ab enquête cette unité nag d'élite de la police nationale daal di ko réussir gannaaw nag bi nga xamante ni daal nañoo teg loxo ñaari kidnappeurs yi nga xam ne rek ñoo daal di kidnappé liggéeyee ci boobule pouponnière Ndella Madior Diouf ñoo def jëf joojee boobule scénario di kidnapping nag ñu daal koy tracé ñu xam ne nag boobule femme rek dafa doon ko gëmloo ni dafa nekk en état de grossesse ba taxoon nag jëkkër ji doon ko envoyé ab som ngir nag mu doon amal ab visitam waaye nag boobule femme ëmbutoon na benn yoon ba taxoon nag mu demoon ca boobule pouponnière bëggoon fa tenter adopté ab bébé waaye nag boobule demande bi nga xamante Ndakaaru def ko gantaloon ba taxoon boobile femme rek mu daal di woon ci vigile bi mu proposé 2 millions de francs CFA ci boobile vigile bi nga xam ne rek moo doon liggéeyee ci boobile orphelinat ci noonu mu daal woon ko avancé benn somme de 65 mille de francs CFA ci sens bi boobile vigile nag mu jëloon boobile bébé vers 6 heures du matin mu daal koy jox nag boobile femme mi nga xam ne rek moo ko versé boobile somme ba sont kidnappés ñu daal di teg loxo femme bile ak vigile bi nga xam ne moom encaissé boobile som ngir nag mu jël boobile bébé mu jox ko ki nga xam ne rek mooy femme mariée nga xam ne rek moo ko fayoon 2 millions ci noonee mu daal di woon ko jox ab avance de 65 mille francs CFA waaye nag jamono jile ñoom ñaare ñëpp rek daal dinañ leen teg loxo.